dikkati naa wax feeñ day la ñu wax Sud Quotidien ne ma waaye ku ci sàllar ñi kot sag masque daal di wadd yéene kaay bi ne ma masque yaa ngi tàmbalee daanu ndànk par ndànk ngir nag waajal présidentielle 2024 bi Sud naan man Idrissa Seck ma nga ca nee na fan yi falee gor ya ma fa taxaw ba tey jii nii réew mi Quotidien ne ma xaaral ma ñëw dafa mel ni Idrissa Seck nag candidat la lii di wane ni Benno Bokk Yaakaar nar nañoo am ñaar ciy candidat Tribune yéene kaay ne ma Idrissa Seck mooy xëri bañul wala it ñu mën ko tuddee kenn bëggul moom idi ma nga ca biir président Macky Sall gaaye naan bëgguñu mu nar a fàq dem ci opposition bi ne bëgguñu idi saa si tembe nag yéen a kaayu dee média bi naan maan moom Idrissa Seck nag daal dinay bàyyi président Macky Sall idi ci laas yéen maa ngi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ba tey turbine yéen a kaay ne waaye loo ci manti dee git bàyyi nga président Macky Sall mooy dëgg coow li mooy boo sampee ndënd loolooy doo jàppale président Macky Sall ci beneen candidature am bi mu bëgg laaj kay daal di sampu moom njiital conseil économique social ak environnemental gannaaw ba nga xam ne jàppalewul président koy boole dàq moo ki ministre mi réew mi wala tribune yéen kaay nan man loo ci manti dégg coow la ca pendub ba gaa amul baak la moom Idrissa Seck nee na candidat la coow la coow la mooy ay résultat am ca mbaa xool na ko la xale ya naan mbaa yaa ngi xool gaa ya naan Idrissa Seck demal yëriwaat say résultat ñëw soo paree nag door a wax ndax da ngay continuer samp sam ndëndam jeet ndax nag ay ata ngi nii Thiès moom France daal di xiddeem dara amoo ko fa tribune naan kon te nga xam bi it bëgguñu la yow Idrissa Seck opposition boobee tribune yéen kaay xamal ma ni diggante Bougane Gueye dañi njiital gëm sa bopp Mimi Touré ak waa yeewi askan wi daal dinañuy booloo defub say sayub naanaa wala saxaw lu ci mënti am candidature bu président Macky Sall la ñuy bañ nee nañu ñetteel bi mandat du am ci mim réew Aïssata Tall Sall ci vox populi naan leen da ngeen di foo rek bàyyi leen waxi ñetteel bi mandat te wax ñaar président Macky Sall moo koy am ci réew mi Bougane Gueye Dany Mimi Touré ak yeewi askan wi naan président Macky Sall du fi sampum ndëndëm tribune yéen kaay ne ma jàngalekat républicain yi day nee nañu Macky Sall rek ci lël boo xam ni amaloon nañ ko mouvement national des enseignants républicain joxante woon dig daje nag ca pakaaw foofee gaa yu may mun a si soxoxu may naan ñun daal ñoo ngi xool te la ñu président Macky Sall woon doy nañu te la ñu soxalit mooy njàng meeg njàngale mi moom Sall ngaari lam tooro bur géde daal na koy jooyanti nañ ko bëggee diggante professeur Moussa Baldé ministre Luc Sarr ak Abdou Fall enseignant républicain yi ne président Macky Sall mooy suñu candidat may mun a si soxoxu ma naan leen nan ca jaaree nag wàññi xiiroog ŋaayoo geeg coow li waaye tam parparloo gi ñu daal di koy wàññi ci suñu biir xeexle président Macky Sall ngir mu am am ndam tribune naan man Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp Mimi Touré ak Yewwi Askan Wi nee ñu président Macky Sall du doon candidat 24 heures yéen a kaay naan nga naan nii wii nii non le mandat yéen a kaay ne Idi kay nee na dafa juddu ngir doon président critique yéen a kaay ne ma moom Seck sa nginaar di sub Thiès ma ngay xàllub yoonam ci biir a kaay naan Idrissa Seck day naxe wala saa si tembe Seck day jouer théâtre wala candidature am bi lu a naan man 2024 neex na te yegg gun ca Sud naan kon waxoon naa la masque ngi tàmm tàmbalee wadd Idrissa Seck daanaka ma ngay naxee mbaay rek waaye candidat la Déthié Fall bu PRP nee na pare na Ibra Kadit jàpp ne candidat la moom Abdou Mbow ci yéen kaay bi naan allié yi attention moytu leen candidature yu bëri yi sur soi daal di may xamal ne candidature yi day mi ngi mel ne tulleeg maale Idrissa Seck pare na Déthié Fall ngembu na Aïssata Tall Sall ma ngay jàppale président Macky Sall coordonnateur régional bu AFP Thiès ma xam leen ni Aliou Sarr bëgguñu ko rusul candidat Mamadou Ibra Kadit boo moytul mu ne saraax ci présidentielle yi 24 heures man beneen candidat bu bees a ngi nii Al Assane ñaa lay wuyoo mouvement jiital wareef ñoo ko daal di samp ci week-end bi mouvement jiital wareef boobee yéen a kaay bi naan man ci wàlluk social la ñuy dox ñu war tënk seen programme bi nag ci ñaar fukk ci poñ poñ yoo xam ni la ci ëpp solo moom mooy nit ak nees koo jàppalee wàlluk développement waaye tam jaarale ko ci unité nationale booloo ci dénduk Afrique doon benn diversité culturelle yi daal di am waaye nag nees def ba daal di koy jaxase moom El Assane ñaa mi nekk spécialiste en droit public yéen a kaay bi ne ma moom it la 2024 dëgg-dëgg bu doonub siis yëngu na le quotidien le quotidien naan maan xalif bu cene day ma ngay beneen candidature bu président Macky Sall tribune yéen a naan maan jay na ba jëngit ma ngay président Macky Sall responsable APR la ca na Sall ngaari lam tooro mën naam beneen mandat ci réew mi Bougane Gueye Dany ak gëm sa bopp wi naan lu mu neex neex président Macky Sall du ca bokk moom tribune yéen a kaay naan maan Déthié Fall yi daal bari nañ ci yeewi askan wi Déthié naan moo ne mën naa jiite de yéene kaay bi ne coow li du foofu coow li ma nga cay yéen waa yeewi askan bi seen i candidat dafa bëri Mamadou Lamine jante naan bari yàqu ko de ndax faaw ñu tasaaroo fu makki ne coppet fee ñu daal di fël feneen l'observateur naan Ousmane Sonko candidat la waaye Sonko moom dafa am feemu politique am ndax nag saa si tembe dafay waxee foo xam ne askan wi dañ koy déglu débat yi di gën a yàgg gaa yi di ko gën a gëm docteur Ndaw naan attention man ngaa détourner opinion bi de te mën nga caa am ndam waaye nag ndam la du sax source a naan man réew maa ngi jëx-jëxee ki candidature le quotidien le quotidien may xamal ni moom président Macky Sall ma nga jëm ci moom président Macky Sall nag war fa fekk chantier yoo xam ne dina doy waar lool le soleil yéen a kaay nag gis Sédhiou goo xam ni daal dinay soppi lu toll ci ñaari téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti ñu daal di ko fa ni saraax critique yéen a kaay neen Abdoulaye Dieng njiital AIBD ma nga naan président Macky Sall yegsil ndax aérodrome bi ci boppam noppi na Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp Mimi Touré waaye askan wi naan président Macky Sall defal lu la saf waaye sa candidature moom du samp ci mim réew ñetteel laaj bi mandat dañ ko fii tere te doo ko def vox populi naan loo ci manti déggin maître Moussa Diop ma ngay njortu ne ab gu mag moo am diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall laas yéene kaay naan man soxnay Benno Bokk Yaakaar saa si tembe day ñanga say jëm ci faatu jaane ndax nee ñu na muy doxalee baaxul Sud Quotidien moom daal di xëy sampub laaj laaj ba mooy fan la Amadou Ba féete ci réew mi boobu la point yéene kaay ma may xamal ne Pape Modou Fall day ma nga woon ca diiwaanug Jurbel ca Touba daje nag ak maître coranique yu Touba yi waxtaan ak ñoom ci diggante bi nag ak partenariat bu mag daal di cay juddu diggante sëriñu daara yi ak directeur de l'emploi gars yi naan kon yaa ngi jàppale daara daara da lay jàppale te loo ci manti dee git ñoo nga sa ginnaaw box su papili naan maan waxtu woowu moom jëwrin gi dénk wàllu njàng meeg njàngale mi day ma nga mer ba futu yenn ci entreprise ay salle de classe yu doon war a defar ngir mu remplacer abri provisoire jébbale classe ya moo daal di yéex moom ministre de l'éducation nationale daal di mer ay entreprise ba futu ci juróom fukk ci milliards daal dinañ leen koy jébbal ba tey lu toll ci juróom ñetti téeméer ci ngeen nu jébbal Cheikh Omar an naan leen ay bailleur ñoo ne sama ginnaaw te contrat ba bëggoon naa ko dakkal waaye li muy doomi réew Sénégal tax ñu yeexantu ñeenti at gannaaw bi nga xam ne xaatim nañu kontra bi ci loo njëkk bi mu war a toll ci junni ak juróomi téeméer ci classe boo ko xayma téeméer boo jël juróom ñett fukk juróom ñoo ca yembagum te lii ngeen wax sax gisuma ko ñu daal di tëb loo deux ba dem ci loo trois te foofee téeméer boo jël fukk ci wàllu programme ba ngeen fa yeggali saa si tembe loo quatre leen ko xalaat ndax contrat ba ci boppam la ñuy dakkal ndax nag ba nii loo trois ba tàmbaleegul amul te entreprise bi wane na ni dëgg-dëgg attanul lii te mënu koo defar abri provisoire yi xale yi dañ koo soxla ngir jàng te ba tey mënu leen wéyal liggéey ba ci loo xam ne juróom benn junni salle de classe lañ war a taxawal loo ci nekk wara a defar junni ak juróomi téeméer salle ñeenti at gannaaw bi man ni junni ak juróomi téeméeri salle jotagun ko fukk ak juróom benn milliard saa si de dekeese nañ ko ngir ngeen jébbal nu junni ak juróomi téeméer salle ba tey benn salle sax jébbalewun ko ñu ne nañ jàppale doomu réewum Sénégal teg ko fan direct news naan maan Cheikh Omar Anne mer na yàgg jàng muuñ xoolal leen ma Abdoulaye Thiam journaliste sportif coono ga mu daan daj ci stade ya tax na mooy njiital pees bu Afrique libération yéene kaay naan man coow laa ngi moom M6 ndeke yoo mbokkum taalibe moo ko pendre xale bi fukkeet ak ñett la am ndeke moo ñeneen ñaar ñoo xam ne njort nañ na ñoo ko defandoo ñoo jël xale bi daal di koy takk ba mu mel ni xale bii dafa xaru ndeke yoo ay xale yu toll ni moom di mu daaraam ñoo ko dal di faat màkkee mbir mi nag ne coup la ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te